barkat borom Tuubaa barkat borom Tuubaa mbokk jullit di tuub bu baax di jégalu ci kaddu yi ñuy bëgg a yëkkati muy kaddu yi ndigal bàyyi ko ci suñu jëwriñ Serigne Saalihu Lo di jëwriñ mu ma xidma Touba Bargny ñun ñi di jottali kaddu yi ñu woowee Youssoufa Gueye di ab donga di ab taalibe ci Touba Bargny ànd ak suñu jëwriñ Serigne Saalihu Lo ñëw teew ci fii ci Kër Moussa ci bisub xasida bi ak it mbooloo am na kuréel Muxaddamaatul Xidma nga xam ne noo ngi wàcc ngir bëgg a feeñal seen yéene ci bis bi yitte ji nag ak teewaay bi dara sababu ko lu dut liggéey bi nga xam ne moom lañ maase bokk ko muy liggéeyu xasida yi saa borom dogal muy wàcc ñun suñ bopp waaye ci ndigalal jëwriñ mu jokkoog jëwriñ sëriñ Yirim Aw nga xam ne mooy coordonné bisu xasida yi mu xamaloon ko ne bis bii di bisu waa kër Moussa yi na nga fexe ba teew ca ànd ca ak mbooloo saa borom dogalit bi mu ko xamalee loolee mu def yitte teew jëmmi boppam teewalaale mbooloo mi nga xam ne ñoom la yilif ci liggéey xasida muy kuréelu Muxaddamaatul Xidma gépp ñu ngi fi ci ndigalal Sëriñ Saaliw loole moo doon tànk yi moo doon teewaay bi di santaat bu baax a baax jëriñ bi am na liggéey bi di siyaari sëñ Cheikh mi nga xam ne moo fi teew ci teewaayu si ñam sax gis nañ ko nu ngi koy siyaar bu baax a baax di ko ñaanal ab taxawaayam gën a yàgg gën a wér siyaar bi suñu mot daal mi nga xam ne moom lañ fekk si ak mboolem waa kuréel bi nga xam ne ñooy taxawal bisu bi la ñu tudd bu baax di jéggal kaddu yi kaddu yi di kaddu yi ndigal di suñu lépp loo xam ne jub na ci ñoo koy sant yàlla suñu borom di ko sant moom ñu ko sant waaye lépp lu si ngi koy tuub ndax matériel bi doomu moo ko sabab asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu barke borom Touba laka saraftu wa merci